ironie du sort mhm. fi Fofana jeexale mhm. xam nga ko tudd cool azet tudd aaw paaw bu nekk Espagne xale yi fan lañ jëm du Espagne mhm. dafay renvoyer image boo xam ne dafa mel ni ñoom tubaab yi pendant ay ati at à travers esclavage ak colonisation ndeysaan alal ji fi nekkoon yëpp lu bëri ñu jël ko parce que quoi qu'on dise loolu retardé na Afrique tey ba ci domaine yu bëri bëri tey ñu tardé léegi tey mu mel ni xale yi jël gaal yi di dem foofu seen i moomeel. Mhm. la ñuy jëli. seen i moomeel la ñuy jëli la ñuy jëli. Mhm. parce que alal ji nekkoon fii bu bëri ñu jël ko yóbbu ci dëkku tubaab yi. image boobu lay xaw a niru et pendant ce temps tubaab bi ba tey moom mu suuragul. Mhm. mi ngi fii di ñu di fi di fi jël. mais xool ko ci exemple corruption tey. parce que corruption mooy mooy alimenter lépp te sa tey moo ñu retardé. et puis ñu yaakaar ne nguur gi bu ñëwee. am na pratique yoo xam ne dafay jeex. Mhm. mais da ngay xool coow lu toll nii rek ñuy wax affaire quatre-vingt-onze milliards. Mhm. ba tey mais sénégalais bi parce que xaalis bi soo Sonko moomu ko Diomaye moomu ko man ci laa bokk yow ci nga bokk suñu xaalis la sax. c'est le denier public. mais on ne donne même pas des explications. sur quoi. ci affaire ASER bii nii tey. mais est-ce que nekkuñu ji ci ubbi enquête wala. non non polémique am na voilà justement booy ubbi enquête. Mm. toujours ma wax la fii benn bànne à titre conservatoire. Mm. ki nga xam ne moom la ñuy joxañ baaraamu tuuma parce que kilifa bu doon tey Espagne nga xam coowal Azer bi mu mu mu Espagne nga xool ndax ki nekk directeur général Azer ndax dina continuer di yore poste am ba tey waxuñu moo def deful mais dañ koy. dañ koy libéré dañ koy tekkil nombre tànkam dañ koy tekkil nombre tànkam en attendant mais xoolal Cheikh coowal Cheikh Tidiane Dièye ak Cheikh Dièye. Hmm. xam nga ndiiraan am na fu muy toll dafa am na ñaan suspicion légitime. Hmm. mais yow bi nga demee bay ubbi enquête kay. Hmm. wax dëgg yàlla nag. li nga jëkk def mooy Cheikh Tidiane Dieye comme ni ñu dàqee Cheikh Dieye nga ne ko demal toog ne ba leeral ba pare parce que foofu dafay am combat am ndey ak combat amul ndey dàq lañ Cheikh Dieye mais dàquñu Cheikh Tidiane gis nga ma jeexalee fenn asma mhm. fayantoo nañ ko moytu ci réew est que lii fayantoo la nañ ko moytu ci réew mhm. man duma koo xam ne nii damay waxantu wala di gëmm gëmmulu xam nga lu ne fàng kenn du ko jeex waaw xam nga Ousmane Sonko mi taxaw mhm. brandir ay menaces rek ñu commencé continuer ay poursuites waaye lii dafa guléet nii la magasaal doon doxalee ñu koy jay naan muy wéy moom tam ay wéyu séeréer bu fañuy fañuy wàcca caay ñu koy tàccu rek man maay gaynde guy nelaw xëy nag le réveil a été très brutal très bien dama dégg Ousmane mu doon tudd ma jeexalee foofu Samuel Doe et que Ousmane Sonko xam ne histoire u Samuel Doe réellement Samuel Doe histoire u la dafa def coup d'état ku tudd William Tolbert ca Libéria ñu rey ko rey bu ñaaw ministre yi dañu jël figé leen ci plage mhm. gis nga reyu Samuel boobu lu mu ñaawee man ci ay samay gëstu yi ma def loolu moo tiital loolu lañ tiitalee Senghor ba mu daw bàyyi fi nguur gi en 1980 ne Senghor mel dañ daan ko yéen ñi nga xam ne yéenay vétéran yi bu ngeen bàyyiwul pouvoir bi ni ñu leen def rey bu ñaaw gis nga kii Samuel Doe rey bu ñaaw boobu ñu rey William Tolbert moo tax Houphouët-Boigny ñi daaw ko jox loxo Senghor daaw ko jox loxo mosuñ ko reconnaître léegi li ñu ko def en 1990 dafay nuru fayantoo yal na ci yàlla musal moo tax nguur bu ñu la ko joxee bul bi dafay tourné dégg nga dërëmu Sénégal daal ku jël na ko delloo mais moo mais là on parle de reddition de compte et jusque là li ñuy jot a gisagum ci wàllum reddition des comptes Mamadou Fofana mën na dikkan ah, bu ko defee mu mën a bokk ci waxtaan wi ndax dugg nañ ci waxtu mbay mais bëggoon naa ko poser question ndax moom itam ci wàllum mm-hmm. enquête ak yi ni mel. Mm-hmm. daf si xaw a xarañ li ñu gisagum ba léegi. mën a sañ ko woowee reddition des comptes ndax nekk nañ di respecter la procédure qui permet justement d'en arriver à une reddition des comptes n'est-ce pas Mamadou. Mm-hmm. waaw mais xam mbir mi ku denc ku ne te yor alam askanu sunu gaal mais yoon la bu mbir yi jeexee ñu wol la surtout bu fekkee dañ ci am ay suspicion surtout bu fekkee ne dañ ci am ay preuve yoo xam ne dalay accablé ci lu jëm ci wàllum correction ci lu jëm ci wàllum détournement de deniers publics ci lu jëm ci yeneen ak yeneen donc reddition des comptes ça yoon la ci réew moo xamante ne nii mi ngi wax ne mi ngi woote ne dafa bëgg bon gouvernance dox fa dafa bëgg euh, pédagogie am ci li nga xam ne moom mooy sàmmoo ak li nga xam ne moom mooy yoruñu euh, ki alalu askan wi mi ngi woote ci ne wéy dafa bëgg tamit mi li nga xam ne ñii tey moom la ñuy woote mu mu di mbirum jub jubal ak jubante mhm. mais loolu yëpp tamit dafa am fu muy jaare fii ku yor gestion mhm. corps de contrôle moom moo mën a habilité comme mhm. cour des IGE ak OFNAC peut-être mhm. même mu ne wax ne ne situé responsable te par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy dóot baaraamu tuuma nit ki mhm. bu fekkee ne ne nag loolu dafa rek mhm. yoon am na droit comme tey ni ñu tegee parquet financier bien sur parce que tey dañ ko gën a dëppaleeg jamono gën ko may doole gën ko kii ci lu jëm ci wàllum xeex surtout yenn yi nga xam te ne nii mun nañ jàpp na ne ay luubalu alalu askan wi te nekku ci loo xam ne lu tegu ci yoon la mais tamit ci kaw loolu am na ci mbir yoo xamante ne nii mënuñu ci bañ a gis mbirum daanaka règlement de compte politique wala mënuñu ci gis li nga xam ne mooy mbirum jaay doole li nga xam ne moom nañ doon xeex démb ak bërki démb donc looloo tax ñu ne kat ces vaillants magistrats yi nga xam ne ne am nañ ci ñoom confiance kër liggéey bi kat nañ ko defee ci li nga xam ne moom mooy anam gu gën mm. gëmuñu magistrat projet bi wala gëmuñu ne magistrat la bi nga xam ne ne nii pour fair plaisir à un premier ministre ou à un président mais un magistrat boo xamante ne nii li ko tax a jóg moom mooy tëddee njaaxaanaay pour yenn yi nga xamante ne nii kat ci boppam jàpp nañ ne leerul ci bopp askan wi wala nit sàcc na alalu askan wi bëgg ko jëfandikoo kat pour li ni mel ñu mën ko xeex mën ci indi li nga xamante ne nii moom mooy kat jikko yi pour ñu mën leen a soppi surtout ci li nga xamante ne nii mooy yorin gu sell ak gu jub goo xam ne moom la ñuy xaar ci ñëpp. merci beaucoup ci commentaire yi ma Mbaye Ndiaye jël naa ñaari simili ci sa waxtu. waaye Sénégal a ko jar. donc ngeen li may def it Sénégal moom moo ko jar. Ah. donc si kanam après ngeen fay ma sama. waa ji kër nga ñi nga xam ne ñoo nekk au rendez-vous damay doog a nuyoo xam nga léegi li ma léegi il faut ñu dem pardon euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy euh, teewlu waxtu yu jotee ñu ànd ak yéen gannaaw ba mu leen nuyoo. Euh, ci seen dose matinal bi nga xam ne xaaral ma jóg. waa ma jóg baal ah. ma baal ma. Euh, loolu après ñuy lijjanti la. jëkkër <laughs> ak jabar diggante baa ngi ñagas ku ñu ku ñu dëndale. dinañ dinañ dinañ dinañ ci ñëwaat ci ci euh, euh, li muy wax changement dafa laaj laaj bu am solo reddition des comptes bi ba fii ñu toll nii teg nañu ko ci yoon. Mhm. comme ni mu ko waxee. Mhm. yaakaar naa ne lu ñu teg ci yoon moo di. Mhm. déjà menaces yi nga xam ne moom la ñu njëkk brandir jaru ko woon. communication bi ñu ci def nii yëpp jaru ko woon. Mhm. Ousmane Sonko gis nañ ko mu def point de presse ne ñii nga xam ne ñoo fi nekk di wax. Mhm. may leen ma tuuti dootuñu tal coow li dinañ nekk ci leneen et ñu gis ñu déclenché li nga xam ne mooy reddition des comptes est-ce que jaroon na mhm. wax ji ko jiitu dafay yi nga xam ne moo ko jiitu ñu xam ne dañu jëm ci ay législatives est-ce que jaroon na ko loolu je pense que jaru ko leneen li moo di ñii nga xam ne njortu nañu ni dañ leen war a woolu mais jaru ñuy xaar bañ dem aéroport ñu leen di nañ leen ko notifier ñoom ñu xam ne waruñoo génn ci réew mi nañ toog bañ lijjanti seen i dossier te lii gën a normal te ñëpp xam ko moo di reddition des comptes ñëpp ñooy applaudir parce que dañu leen dénk. c'est vrai bu ñu la dénkee boo paree. Mm-hmm. danga war a rendre compte. Mm-hmm. loolu ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. waa jarul menace nañ leen ko notifier démb gis nga far ba Ngom li mu wax peut-être ci beneen kaala jaru ko. mais Mame Mbaye on dit souvent que le temps de la justice n'est pas le temps des des gens. le temps de la justice n'est pas que... le temps du justiciable comme ni ñu koy faral di waxee. mais ñu notifié ko mooy li aw ci yoon. mais bu fekkee.